Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah نور الله لا إله إلا الله الله الله نور الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله نور

لله رب العالمين الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حق قدره ومقداره العظيم سبحان الأصحاب مذو الأربع مالئات لكل متعرض من البول والأوان والنور كلام الذي مرقت به كونك رأيت البامكنة المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجلى منها الخالق أين المعرف بالأقوات الأشكتام للأسلام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بحقك العظم عبادتك منك إليك حركة النور المتلسم صلى الله تسليما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 moom du jeexal moo tax mu ni aduuni astajib lakum nee na na ngeen di laaj rekk nu di leen jox su ko defee jaam mënul am lu ëpp loolu waaye nuy dellu di yeesal sunu ziyaara sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee moom moom la yàlla def mu ëmb lépp luy ngëneel ak lépp luy leer moo tax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 yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddixan lima bayna yadaya min altawrat wa mubashiran bi rasuli yaati min bahdiya ismuhu ahmad mu ni kon na ko xàmme am na kuy ñëw mi ngi tudd ahmad saydi ahmad waaw ndax mooy turu asamaanam mu ni na ngeen ko xàmme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 te Isa ibnu Maryam avertiroon na leen kooku la ñuy ñaan yàlla dinu tëbb ci leeram su ko defee it nuy yeesal sunu bokk ak sunu seddu ak sunu des ak sunu yitte ci keppaaru ki mu amul kudul moom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 su ko defee nit ñi delloosi siwaat seen xel ci yàlla moo indi ñu wax ni tem bi mooy le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel waaw bi réew mi nekkee laaj na ko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 moom mi ñu bind wax na ko ba noppi mu ngi ci alxuraan bu nu ñëwee ci cadre ba ñoo tuddee le pouvoir spirituel li ci borom bi di décider yépp décider na ko ndax mi ngi ci alxuraan dafa am baat bu am solo boo xam ni di ko bàyyi xel dafay doon farat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 qulillahumma malikal mulki malikal mulki c'est le possesseur du royaume waaw moo tax kooku mënul doon benn revendication bu dul bu borom bi waaw malikal mulki le possesseur du royaume waaw loolu day wane ni lépp loo xam ni day dellu si nguur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 kay gañe kero ba ñu wax ni kii moo gañe élection yi yàllaa ko jox nguur gën waaw ndax mooy maalikal mulki tu'ti mulka man tashaa waaye mu dellu wax ni wa tanzi'u mulka mimman tashaa waaw gis nga bu élection ya amee mu ni ki dem defa ni dafay gañe walla daf fiy des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 wa tuizzu man tachaau wa tuzillu man tachaau bi yadika al xayru innaka ala kulli cheyin qadir waaw xaal bi loolu la bi nee na mooy dégg galañu kàddu ga waaw galañu kàddu gi parce que nee na soo ko déggee si ngay mën a def la ñoo tuddee wallu settantal waaw waaw settantal lu am solo la waaw gis nga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 lenn rek nga ko mën wutal comme sabab mooy dangay ngay jàpp ni daf la mettre en garde waaw daf la mettre en garde ci wàllu pouvoir pouvoir temporel surtout parce que xam nga euh, li borom bi di moyetu mooy nga jël sa toor yépp ak sa yaakaar yépp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 mu ni la shamshi yanbaqi laha an tudrika al qamar wala laylu saabiqu nahaar wa kullun fi falakin yasbahu waaw nee na ñoom ñaar ñëpp kenn ku cene da ngay évoluer selon un calcul minutieux mais kan moo nekk ci ginnaaw di calculer c'est le créateur c'est le créateur mooy borom bi moo nekk ci gannaaw di calculer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 ñu ni nit ki génn na àdduna ñu ni nit ki dee na suul nañ ko mu indi ay malaayika delloowaat ko rooxam dékkil ko ci biir bàmmeelam waaw loolu rek doy euh, wàllu kéemaan waaw loolu rek doy na pour wàllu kéemaan waaw processus boobu borom bi def bi doomu aadama bi juddoogul waaw kenn xamul góor lay nekk kenn xamul jigéen lay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 ak ñim lay dénk seen responsabilité ba noppi soog leen di laaj seen baat waaw gis nga ñoom ñi ngi sàmm sa digganteeg yàlla rek moo tax ca seen waxtaan yi boo leen dégloo ba yàgg da ngay dem ba ni kii est que wax na ci li ma yitteel parce que li muy wax yëpp sa digganteeg yàlla lay sàmm ndax ñoom nee ñu ba nga ko tuddee pouvoir temporel rek nga nga waroon xam ni dana am temps boo xam ni dafay jeex waaw liy dellu ci wàllu pouvoir spirituel nag.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 lépp loo xam ni day dellu di dugg si rox yi rox yi war ko enregistré mu leen di defar mu jaare ci moom jóge ci moom soo koy dugg ci ñooñ waaw mu connecté diggante xayb ak shahada connexion am diggante xayb sax mooy gën a fort que bu shahada waaw parce que lu ci ne processus la waaw te gis nga seen dimension mystique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 ñu leen may doole jooju ma ni ko ñan la mu ni mooy ñi nga xam ni dañuy fexe di jéem a bénéficier wu ci seen pouvoir ñoom afarit yi te seen pouvoir la ci ëpp ci wàllu zulmaani yu lay dell delluwul ci wàllu nuraani waaw te da ngay gis da ngay gis ay mystique yuy jéem a seen pouvoir zulmaani yooyu yent yàlla Suleymaan ni nag ñoo ñoo leen may doole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 mooy ñu jóge xadaratul ilaahiya bind dossier ki nga xam ne tey bu jinne yi doon am xutbu zamaan mooy seen xutbu zamaan ñu di ko wax kayra mu nga dëkk ca biir géej ñu bind ko dossier ni ko na fexe ñu gis chefu afarit yi fan la siège ay ay wëli ko doon sedde ay wëli yu boo xam ni day am baatin mën a xam leneen muy gëstu fan la chefu afarit yi siège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 ca la ñuy jaare ba dugal fa seen chef mu siège xam nga luñ doon bañ malaayika fekk ka fa waaw bi nit yàlla yi ne lu luñ ci jublu ma ni malaayika fekk ka fa lañ doon bañ parce que malaayika bu ko fay fekk dafay jaar ci voie bi nga xam ni mooy voie d'ascension normal bi bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te voie d'ascension normale boobu ku ko xam boo demee ba dugg ci bahrul xayb bëgg bëtt lumière salaatul fatiha fa la sa leer di jeexe ndax zikkar ba lay yóbbaale ca bahrul xayb am na malaayika yu ko doon romb ca ñeenteelu asamaan seen lumière fa la des waaw si Abdul Xadir Jeylaani bu daan bàkk bu njëkk ba ca xaalam loolu la daan wax dafa daan wax am na fu malaaka see ak lumière am ma xuus ko ci yaa allahu dem waaw ndax nitu yàlla la àggoon na foofu li mu doon bañ mooy malaayika fekk leen foofu moo tax ñoom ñu loose woon ca gannaaw siège waaw seen chef fa la toog xam ni kenn du yebal malaayika mu ma ni waaye dafa fàtte am na ñu beneen yoon mooy nawamis mis leer du ko wan mukk parce que su demee ci leer ba leer gi bëgg jeexal jeexitu rooxam dafay soppeeku moom doon leer comme moom ba formé wu waat continuer nawamis lépp la mën jël forme yëpp la mën a jël waaw ñu dem jëli ka nag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 ma ni leen ndax liir ngeen ndax liir ngeen dossier bi nekkoon ci seen taabulu chef ca gannaaw siège tarixa ñu ni déedéet ma ni xam nga lu mu bind ca dossier ba mooy gis nga buñ leen bàyyee fii Guinée gii la dugg pare ñëwaat fii waaw ñu ni léegi lu ciy pexe ma ni nanu bàyyi Cheikh Tijani Chérif décidé waaw ma ni nanu bàyyi Cheikh Tijani Chérif décidé te bi may wax loolu ma xamoon ni abadan Cheikh Tijani du ci wax man xamoon naa waaw man xamoon naa ni du ci yëgoon ni moom ci boppam du ci wax mukk waaw waaw ndax Cheikh bu naree exterminer ay être du leen exterminer fii dafay dem fa ñuy sosoo mu exterminer foofu moom noonu lay dem ñu nekk boobu ba léegi waaw boobu ba léegi boobu ba léegi bés bu nekk rek ñu daw seeti ñëw ma ne ah fa nu jëm ma ni leen ndox amu fa de waaw waaw moo tax démb bi may bi ñu toogee di waxtaan yàggul tuuti rek gaa ñi naan ah nu ñu def conférence bu suba Dakar a ngay tàkk ma ni leen piège la gis nga affaire yi dañoo defe ni bu nu taalee dakaar day tax bu subaa du fa dem ak sama yat moo tax ndax yat bi def leen di lakk ma ni leen même buñ ko taalee dinaa fi ñëw wax ko xalifa Umar mii waaw wax ko xalifa Umar mii ni ko pièce la dañu defe ni dama naan yebbi leen ma ni kenn du yebbi daf lay jaaxal waaw waaw pour wax la afarit yi ñi leen xamul rek ñoo leen xamul mais li ni yàq ci réew mi Sénégal kenn xamul nu mu toll parce que nit ñi seen bopp la ñoo utiliser di def ci ñoom lu ñu bëgg def waaw te pouvoir mystique la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 kon yàlla nañu ko yàlla boole waaw yàlla nañu ko yàlla boole waaw ndax loolooy barke waaw yàlla nañu ko yàlla sédd yàlla yàlla def it mu doon suñu njëriñ waaw ndax réew mi ni ma koy waxee suñu réew la su baaxee suñu réew la bu yàqoo suñu réew la kon na ni ñaan mu baax waaw te ñaan jàmm rek di fi am tabaarakallaahu waaw waaye ñaan itam sortie de crise bii buntu boobu mu nekk buntu boo xam ni buntu njëriñ lay doon ci Sénégal li yëpp rawatina ci umma islamique bi yëpp tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla mottali waaw yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yàlla na ko yàlla mottali ci barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif waaw yàlla na fi yàlla delloo si jàmm waaw yàlla na fi yàlla delloo si jàmm waaw yàlla na fi yàlla saxal jàmm waaw ndax jàmm rek ci la lépp xëy waaw jàmm rek ci la lépp xëy waaw moo tax ñuy ñaan yàlla na ko fi yàlla delloo si waaw ndax loolooy li am solo waaw loolu mooy li am solo waaye li ma leen wax daal na ngeen ko jàpp gis nga xeex bi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 pour soutenir leen ndax sonn na waaw yow it yàlla na yàlla taxaw leen waaw ñoom it yàlla na yàlla sàmm leen waaw ñoom it yàlla na yàlla jàppale leen tabaarakallaahu nu jàng fatiha jàng salaatul fatihi ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu ihdina siraatal mustaqiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima